Fallou fii la dëkk Paa Waale Naar Lamine Naar moom mag fii la dëkk waaye maar sa kër maama ngeen di syndicat yal na yàlla guddal sa fan. Badiane xaalis tey kenn war wax maa war a wax dama nga toog asalaamaaleykum mbooloo bi yal na fay yéen doomu bëgg nii ndax ni ma mel leen la ginnaaw yàlla ngeen jublu sëñ Tuubaa Papa Thion la ak doomam baax jogore ji ku ne xam na ne fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee fii laa defee lépp ma dund ci aar nag xaali may ma sama waaj ñëw tuuti tey li may wax dafa am solo li may wax dafa am solo lool ma dund ci aar daj ci lu ne yàlla boole mag bàyyam bi ma yàlla booleeg bàyyam mu gis ma bëggal ma boppam bi loolu amee ma sant ci yàlla loolu ndax sama yaay dafa ma daan wax naan loo mën a am ci àdduna xale la koy may xale mu bëgg ma nag tafuma ma jël ko tafoo ko waaye tey rëccuwuma ko nu ma mel tey moom ba mu doon dara dara ñu dégg lu nag mu metti lool bi mu njëkkee tekki maanaam du tekki sax maanaam bi mu njëkkee am gis la la ma jëndal deux cent cinq boobu dara lagul sax jabaram amagul kër ñu dawal tuuti mu yor ne rus naa dawal paramena amari dawal deux cent cinq jël paramena bi may ko jëndul ma benn 4x4 bi jël onze millions cinq cent ci jooju boobu amul kër teralagul jabaram teragul ay raxam maanaam ci man lañ Amady Badiane la njëkk a ci doomu aadama kon Wally gàcce ngalaama yàlla la yàlla defal jàmm li nga bëgg yaa ko xam yàlla la koy yàlla defal amiin jaarale sama jikko ko fi laa juddoo fi laa yoroo yàlla la yàlla defal jàmm merci beaucoup moom mii moom waroon abal tubay bu may sol tubay tubay ah moom moom waroon abal jiin ah c'est normal ki la daan abal jiin kay soo demee ba am njëgu jiin da koy jox jiin ak chemise nest